ah asalaamaaleykum mu ne ñu ngi wax inna lillahi wa inna rajoona yow yàlla yàlla nga ñu yool suñu musiba yàlla nga ñu wëttal lu gën ñu ngi tàggoog benn jaamu yàlla mu ngi nii di dem fii fii la dëkk doomu mbir na dëgg la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 ndax jam-jami sew yi muy jam ci biir xam-xam boo amul xam-xam doo xam li muy wax soo kamee da ngay nekk ci bànneex loolu ci la nekkoon ba jeexal ci dundam ci conférence yi ci gàmmu yi ci daje yi nga xamante ni daf koy daje ñom kese Ibrahima Ndiaye wax na ci dara école ba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 lépp sànni na ko ngir xam-xam moo am solo mooy tabax nit mooy wax nit mooy ñemee wax déedéet mooy tabax nit moo ñemee wax waaw mooy tabax nit mooy wax nañ dem mooy tabax nitam moo ñemee wax nañ toog loolu lépp xam-xam rek moo ci am ci nit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 ñoo xam ne dañ daan fekkee jotaay boobu moom jotaay boobu la ko toxoon a fasu sëriñ mu moom xam na ko liggéey na ci tam moom mooy naka la ñuy tasaaree xam-xam ci suñu génération yi di màgg si naka lañuy tabaxee ay góor ci génération yi di ñëw naka la tabaxee borom fit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 dem na ak yéene yooyu waaye yal na yàlla dëggal yéene yooyu ci ay doomam ci génération bi di ñëw si am na ay doom yoo xam ne mu am ay doom yoo xam ne ñun ñëpp ñu am doom yoo xam ne yàlla nañ am kàttan te dinañ am kàttan dinañ am kàttan